bonjour à tous euh, bon réveil merci beaucoup de nous rejoindre sur télévision Futur Média ñu àndandoo ak euh, yéen euh, yeewooti leen ñu fas yéene leen gunge ci suba si ba 10 heures alors tey nag tombé na ak mercredi 27 27 août j'allais dire octobre ah 27 août 2014 ñu ngi leen di souhaiter une très bonne journée alors maa ngi ci wetu Alfi parce que ca fajar ba tey ñu ngi tàngal suñu café ak suñuy baax ah yeewu bañ naan lu tàng wóorul quoi parce que café day ànd ak purit gis n'est-ce pas mais banaan yi ma fi gisee tamit intéressé na ma parce que léegi naa banaan baax naa <laughs> alors euh, mesdames messieurs leen ma présenté leen ki gën a bëgg banaan ci Sénégal Khady Ndiaye bisous. si yaa bëgg banaan <laughs> ça va les naka suba si. bien dormi bien réveillé. alors ñii ñooy ça alors tey je suis à Soumbédioune c'est ça on se retrouve ah ñu ngi leen di béggee encore di leen souhaiter une très bonne journée bienvenue mercredi 27 euh, août 2014 pourquoi j'ai démarré ak banaan yi naa leen ko wax ci kanam parce que Bijou ak Alfi dañu bëgg banaan mais Mado euh, nee na dafa am euh, allergie allergie banaan quoi ah <laughs> Fatou aussi neen du parce que <laughs> parce que banaan a fajar pourquoi <laughs> on verra bu ca kanamee alors tout de suite voici ce qui vous attend. dans Yeewu Leen de ce mercredi on attaque donc avec le sommaire alors les infos euh, vous en aurez xam nga euh, télévision Futur Média mooy premier euh, ci wàllu xibaar suba gi ndax am na ñaari rendez-vous ñett sax 6 h cinq bi mu jotee sànq am geen bulletin waaye nag bu ca kanamee bu 8h jotee daañu àndandoo ak Fatidien Fatidien bi nga xamante ni moo ñu yaatal yaatalal xibaaru suba gi c'est ça et puis dinañu àndandoo ak Absa ci météo bi. bi Jok Job itam euh, bu ñu amee message yi bu génnee ñu joxe ko sinon on attendra peut-être demain parce que j'imagine que yenn saa yi machine bi day nelaw ay nelawam quoi <laughs> et puis aujourd'hui on aura euh, de sport ak euh, suñu coach Ousmane Fall poste surveillance bi tam ça viendra alors comme tous les mercredis on parle sport euh, démb gis ngeen ko ci euh, suba gi wax nañu ci listu suñu gaynde yi nga xamante ni ñooy fas yéene jongante ci préparatif CAN 2015 yi alors 23 lions yooyu pour les deux premiers matchs connus dañ ci àndandoo ak Malal n'est-ce pas su ma juumul. waaw bu baax a baax. Pape Cheikh maa ngi lay ziar nañu waxtaane 23 23 joueurs di sama gaañ yi. Uh-huh. yàggoon na de. waaw lan yàlla kenn namu la. arab yaakaar mais man namoon naa leen. mais man namoon naa leen mais man namoon naa leen. jaay Ali Ba. mat na ñaari weer la waaye na ma kenn namu la mat na ñaari weer. mais man namoon naa leen. kenn namu la am ngeen si doole man namoon naa leen. dañ laa bàyyi yow dañ laa bàyyi. oui ma ndax doo fi wax danga ma yóbbu Brésil ba pare jóg dem sa yoon. maa yor sa passeport moo réer. dama la bàyyi kenn namu la. waaye man namoon naa leen kenn namu la léegi kon bopp la yéen a ko dugg marché Grand Dakar. kenn namu ko booy def sa booy def sa chronique fexeel ba bu ñu xool. voilà voilà kanam donc bu ci kanamee CAN leen càmbar quoi c'est vrai que Lions yi kenn leen ah ñooñu ñu ci bëri leen ah bon ñu fi ay xale lañ leen de toute façon. mën nañu ni <laughs> la cuisine alors ce matin elle euh, propose comme euh, euh, recette banana split. <laughs> <laughs> n'est-ce pas banana banana split ah. banana split bonjour Alfie. bonjour Pape Cheikh <laughs> bonjour mbokk yi ñuy seetaan kon Pape Cheikh comme ni nga ko waxee. tout à l'heure on va. on va proposer des banana split. Mhm. ni ñu koy defaree naka la ak nan la. Mhm. donc ci kanam ñu dem ci. banana split ah. tout à fait d' accord ok alors euh, Mado nous propose ce matin euh, man je dis souvent <laughs> fun and fashion waaye ah fun and fashion la avec son chapeau euh, bu ca kanamee on parlera foulard. exactement Pape Cheikh comme ni nga ko waxee on va parler de foulard plus précisément le guélé. Mhm. le guélé nag ñu gën ko xamee nag ci foulaaru ñi nga xamante ne ñoo di nigériens yi. ah ah nigériane hier tu m'as corrigé. Ah, Nigéria la parce que daa am Niger ak Nigéria. donc ñu dëkk Niger on les appelle des Nigériens. exactement ñu dëkk Nigéria on les appelle des Nigérianes. tey jàng de ah. <laughs> chez moi sa <laughs> jàmm mbokk la <laughs> donc on parlera fula c'est vrai que c'est très tendance gis mm. euh, sama yaay di ci def yu baax ak uppukaayam bu rëy boobu waaw ah. ça s'appelle comment le guélé en fait ça s'appelle le guélé d'accord donc on mm-hmm. parlera du guélé tout à l'heure dans Fun and euh, Mado alors grâce ak Bijou on découvre souvent un monde de de fou ah mm-hmm. tey jii MTV Video Music Awards n'est-ce pas exactement Pape Cheikh temps ak Miley Cyrus Beyoncé jay Uzi et puis Nicki Minaj mais aussi soirée bi amoon avant MTV VMA euh, VMA yi. Mhm. ñi nga xam ne Chris Brown moo ko organisé woon drame bi fa amoon. Mhm. ak benn action boo xam ne c'est devenu viral actuellement ci biir internet bi. Mhm. on va le faire en direct ici sur le plateau. d'accord et toi tu le avec beaucoup de plaisir on le retrouve ce matin euh, désormais il nous propose du Made Sénégal. Made Sénégal Pape Cheikh ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu téléspectateurs donc désormais ah chaque mercredi. yi dañuy ñëw andi leen li nga xamante ne nag mooy consommation locale mm. nga xamante ne ci dëkk bi lañ ko defaree mm-hmm. doomu Sénégal yi di ko defaree te euh, Sénégal yi di ko consommer ah mm-hmm. donc loolu la leen andil euh, mercredi bu ci nekk euh, incha allah voilà consommation locale. et puis li ci neex li neex ci émission bi mooy dès à a composer à vos téléphones ñu ngi leen di xaar 88 les 628 65 65 wala 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 joxe ku njëkk a dugg léegi nii ci fajar gi di nga am jotaay bu njëkk euh, ci euh, xibaar yi dañ ci ànd ak rédaction bi huit heures lay doon waaye léegi nii dañuy euh, fekki Faty fa mu taxaw bu ko defee mu wax ñu lan la fa yéenee nafar bu huit heures jotee asalaamualeykum Faty Dieng. maaleykum salaam Pape Cheikh. na nga boobu rob fi yaa fi ne de <laughs> loolu maa ko wax. nuyu fay naa la Pape Cheikh <laughs> nuyu Bijou nuyu Exadex Mado ñi nga bokkal plateau Malal ak Alfie mbokku téléspectateurs yi ni ko Pape Cheikh waxee xibaar yi suba teel yi bokk na ci euh, li ci gën a fës muy euh, wàllub euh, benn dënn boo xam ne dafa daanu fële ca diwaanu Ngelo ñaari borom kër daal di cay faatu ak yit lu jëm ci ndongo bi di Bassirou Faye enquête ba mu ngay wéy benn ci ndongo ne na am na preuve firndeel na ko ndaxte joxe na benn xaaju bal bi nga xam ne yoroon na ko lu jëm it ci affaire u Lamanta Beach chef bu brigade chef de brigade bu diwaanu Mbour Abdoul Khadr Kébé moom tey jii dinañ ko àtte ginnaaw bi ñu ko bàyyee bàyyi néggandiku leneen it lu ñu fas yéene fësal euh, tribunal des pairs bu CORED tey jii dinañu ko installé kon Pape Cheikh ñeenti ponk yooyu bokk na ci li ñu nar a faram fàcce incha allah bu 8h lay doon. gis naa itam nga jàkkaarloo ak quotidien bii di l'observateur ndax mën nga ma nafaral tuuti rek euh, li ci ne balaa may dem ca rédaction bu mag ba xool ñoom naka la ñu ko tëralee tey. voilà l'observateur xëtam bu njëkk mi ngi fësal euh, rapport 2012 cour des comptes moom nag dafa rek épingle. anglais kii di Macky Sall ak Idrissa Seck euh, ñoom nag euh, ñoom ñëpp nekkoon nañu njiitu euh, jëwriñ fii ci Sénégal lu jëm nag ci wàllum ordre ak frais de mission ba tey ci l'observateur Pape Cheikh ñu gis te it loo xam ne jéye la fële ca cité Fadia James Gueye moom nag ñaareelu étage la tëbee daal di faatu gannaaw ba muy daw ñi nga xam ne ñoom ñooy ndawal dik dañoo ñëwoon di ko seet leneen it Pape Cheikh tàggat yaram malal xam naa dina ci ci euh, ñëwaat waaye bii moom euh, Sadio Mané lay wax mu ne Sadio Mané nag euh, dafa lànk ne du ne nag fële ca wàllu tàggat yaram lay doon Pape Cheikh. voilà kon jërëjëf Fatou Dieng yeneen yéenekaay yi bu ca kanamee daañu ko gën a nafar ànd ci ak Mamadou Mouhamed Ndiaye boori 9h30 lay doon ci yeewu leen bi bonne journée encore ah réveillez-vous ngeen door seen bis bi tey ñu àndandoo gunge leen ci matinée bi yëpp ci télé bi la nga xam ne ñoo ni woon mooy miroir du Sénégal bu

Lequel rapport épingle deux anciens premiers ministres, Macky Sall aujourd'hui président de la République et Idrissa Seck qui nourrit le rêve de le remplacer au palais. Les deux hommes politiques se seraient rendus coupables de dysfonctionnements dans la gestion des missions à l'étranger pendant qu'ils furent chefs de gouvernement sous Abdoulaye Wade. À l'ombre de cette information, il y a aussi le placement sous contrôle judiciaire du maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, dans le cadre de la traque des biens supposés mal acquis, une enquête sur les certificats médicaux de complaisance, mais aussi une large fenêtre ouverte sur la liste des lions de Alain Giresse, qui a puisé dans le vivier des Olympiques de Aliou Cissé. Vous retrouverez également vos rubriques quotidiennes en page Index, Société, People, Politique ou Sport. Excellente journée à tous. Yeoulé Nakdiam avec les supports du groupe Média. Merci. merci Babacar Ndaw Faye bonne journée à toi donc euh, ñu ngi leen di souhaiter euh, naka la ñu koy waxee sax bonne lecture ah bu dee bu dee rajo on dit bonne écoute télévision bon bon regardage <laughs> c'est vrai ba léegi man xaw ma nu ñuy wax pour ñuy seetaan télé quoi lan la ñuy bon xool ah ok donc bon xool à vous yéen ñiy lire euh, l'observateur bonne lecture yéen ñiy déglu RFM wala sax di déglu yeewu leen bi en mode FM ñu ngi leen di wax bonne écoute donc